dañ ko xelaat rek ndax xamane du ñak ño xam dañ ko soxla ngir yalla ak yoonte bi deng li boko bëgge man table 5 ngay mokal li moy 1 xam nga 1 la li 2 li 3 li 4 xam nga lu xam nga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gis nga lolu xam nga li moy 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures midi lolu leer na legi nak fi moy 0 gis nga bi waaye boo xoolee xool un deux trois quatre gis nga bu mag bii bu weex bii mooy cinq gis kon un bi un bi cinq lay compter hmm? fii nii quatre moo fi nekk mooy xool six sept huit neuf dix gis nga de kon quinze vingt bu weex bi de vingt cinq trente trente cinq quarant quarant cinq cinquante cinquante cinq gis nga zéro moo nekk nii gis nga loolu noonu nga koy toppee daal diggante bi kat moo ciy ne bu mag bi nekk bi koy bi koy matale a noonu la daal mu daal jëfewul daal incha allah